Seck dal leen ak jàmm 77e session ordinaire ba xewoon démb ca États-Unis d'Amérique moom la yéen kaay yi nekk ci réewum Sénégal xëye tay l'observateur ca la bokk journal Futur Média bi ne session ordinaire bu assemblée général mbootaayu xeet yi démb la doon am waaye la ca gën a yitteel réewum Sénégal moo di taxawaay ba ca njiitu réewum Sénégal nekkit njiitu réewum Union africaine amee journal bi ne Macky Sall kay déndu Afrique ci boppam la layal ci kanamu àdduna wax fa lépp li leen yitteel ba ci Union africaine amul siège ca G20 le soleil national ne discours de liberté dëgg la président Macky def démb ca États-Unis d'Amérique njiitul union africaine ne jot na sëkk ñu taxawal gouvernance mondiale boo xam ne dina méngoo ko jamono Macky Sall yokku ci ne Afrique li mu daj ci coono doy na bëggatuñoo dund dara luy nuroo guerre froide Afrique bi ñu bëgg moo di bu naat bu jëm kanam waayeet bu am jàmm ba faaw journal L'Info ne assemblée générale mbootaayu xeet yi kay Macky Sall yëkkati kàddoom bile mu yëkkati ko ba mu kawe lool wax fa itam bépp doléance boo xam ni yitteel na déndu Afrique lii quotidien na dëgg la Macky Sall la fa ba noppi ne ay saafara la ca bëgg direct news ne dëgg yu amul sikki sàkk kay la Macky Sall wax ndaje mi mbootaayu xeet woote woon ca Amérique las ne bi la yoon dafa yëkkati kàddoom àdduna itam dégg ko le témoin ne avocat Afrique dëgg la Macky Sall nekkoon démb te New York ga ca états si du quotidien bind ci yow xatam Macky avocat de l'Afrique le quotidien ne Joe Biden may jiite Amérique bàyyi xel lool itam ca kàddu yu Macky ya Les Échos ne kàddu yu am solo la fa waxal dëndu Afrique moom Macky Sall mooy jiite Union ñu weesu la kéemaani jëwriñ yi waaye journal uri 15 angle corniche bi nee na protection sociale ak dimbali borom kër yi bokk na ci dossier yu rëy yi nga xam ne mënta xaar le vrai journal duppee leen dossier yu tàng jër yu kenn dul laal le mandat moom samp laaj ne ndax Macky Sall dina seetaan kenn di laal Matar Ba gannaaw bi mu ko sempee ci ministère des sports bi mu ko dénkoon journal bi njortu ne Macky Sall booyam bi di Matar Ba ndax nekkul ne da koo dencal beneen mbaquus mbaquus am déet enquête yéen kaay gannaaw enquête bi mu def li mu xam le moo di bi nga xam ne Amadou Ba jiite na ko faaw ñu lëkkaloo ci seen biir ñoom waa Bokk Yaakaar Dakar ngir ñu mën am beneen taxawaay ci ndakaaru ba mën fee dégg daali ñi déggoon daali keroog élection falum député yi ñu weesu ba tax ñuy dégg honorable député jamono ji ñoo nekkoon démb ca péncum ndawi réew di assemblée nationale source aane 14 commission yi fa waroon taxawal waaye yeewi askan yu saboté waat nañ ko les écones juróom-ñeenti waxtu lan def yoo xam ne si demuñu dikkinu ci werante lañ nekkoon vox populi ne dëgg-dëgg daal ak ak waa yeewi askan wi Seydou Diouf jiite finance Balde jiite défense Abdou Mbow moom jiite loi yi su su ànd démb itam amul benn loi amnistie buñ fa waxtaane lii tax yéenekaay bi jàpp ne ëllëgu Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall ci lang gi moo ngi wéy di lëndëm li léeragul ba tey moo di mbiri Barthélémy Dias ci faatuk Ndiaga Diouf ci wàllum yoon L'Observateur njort ne tey dina am lu ca leer banque agricole itam am na lu ca lëndëm Libération yéenekaay moo ko bi ne léexoor dëgg moo fa am lu ëpp benn milliard ci xaalis CFA moom lañ waar ba àgg ci lool kay moo di accident yi am ci kaw tali bi journal bi ne ci diiru bu fukki fan rek fanweer ak juróom-benn doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci kaw tali bi taxit takk der yi tekki loxo ay chauffeur ak seeni apprenti réew mi quotidien ne démb rek ab camion rey na ñaari nit tax journal bi samp laaj ne kan mooy ne kamion yi jërëjëf